À lui, vous avez asalaamaaleykum euh, mbokk yi mbokku Sénégal euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax euh, di jéggalu ñëpp ci retard bi nga xam ne am nañ ko pour démarrer conférence de presse bi euh, mais surtout di profito ci bësu tey bi pour ndokkale. Euh, waa Sénégal yépp rawatina axlu murit ci màggalu gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy waaj a célébrer euh, di Kazu Rajab ñu leen di ñaan ñu ñaanal Sénégal ñaanal réew mi ba xat-xat yi nga xam ne ci la ñu nekk te président de la République du Sénégal plongé réew mi ci xat-xat yooyu ñuy ñaan ci barke góor gu tedd gi Cheikh Fadilu Mbacké ah yàlla génne réew mi ci xat-xat yooyu saafara ba li nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi ah yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ci jàmm surtout ci jàmm ah mbokk yi li ñu fi dajalewaat xam ngeen ko umpuleen parce que réew mi ñetti fan yi passé depuis àjjuma ba léegi dañu nekk ci tiis nekk ci naqar parce que dañuy gëm ni li fi am Sénégal mérité li fi am ci teg réew mi coono bu mel nii naqar bu mel nii kenn ci ñun liggéeyul pour lool encore une fois ñuy condamné bu baax a baax a baax a baax dàq bi nga xam ne président de la république dàq na ko élection yi nga xam ne ci la ñu jëmoo te dara lalu ko lu dul politique politicienne parce que moom xam na ni moom ak ñi mu àndal waa Sénégal wan nañ leen ginnaaw te bu ñu demee élection du ñu gañe dara parce que réew mi am na beneen taxawaay boo xam ne bëgg nañ ko pour ñu defar réew mi donc loolu du ñu dañ ci di ko condamné mais man li may wax ni du sax dàq élection yi moo ma naqare parce que xam nañ ne yàgg-yàgg dinañ jàmmaarloog ñoom te daañu leen daan mais li ma gën a naqari man ma Mamadou Dia mooy violation flagrante bi président de la République def ci suñu constitution loolu mooy dagg suñu xol yi parce que constitution wu Sénégal pour ñun dafa sacré mooy pacte social ak républicain bi nga xam ne moom la ñu sunu maam yi bàyyeel moom la ñu tëgg pour Sénégal yëpp tënku ci moom nag ñu mu waroon a nekk te constitution bi ne ko moom moo wara taxaw ba constitution bi kenn du ko di ko violer teg ci mu waat ci kanamu àdduna ak Sénégal ak ci kanamu boromam te loolu gën a am solo ne moom dina sàmm constitution wu Sénégal li ñu gis nag mooy violation sunu constitution violation sunuy loi ak sunuy règlement féewale réew mi andi fi confusion moo tax au lieu d'être le gardien de la constitution il a montré démontré à la face du monde qu'il est le gardien de la confusion parce que loolu la fi andi ci réew mi jaaxle bu kenn xamul nu mu toll loolu nag ma jàpp ne ñun ñii di candidat yi te ñuy dajaloo di waxtaan di xool bu baax a baax li nga xam ne moom la président teg réew mi nan la ñuy fexe ba mu dañ ñu ngi ànd di waxtaan di wax nag ne waa Sénégal li fi xew candidat yi ak waa Sénégal ak société bi yépp ñoo war a jóg taxaw ba nooteel gi ñu noot mu deñ te mu jeex te ñu gëm ni élection présidentielle bi dañ ko war a tenir le 25 février mën na nekk te loolu la waa Sénégal bëgg président amul droit def li nga xam ne def na ko li fi nekk nag mooy dañuy xeex ak moom on n'a pas peur de l'affronter il faut qu'il le sache ragaluñu ko dinañ jàmmarloo ak moom li mu laaj ba ñu recouvrer sunu liberté andiwaat état de droit ba ñu respecter sunu constitution loolu lépp loo xam ne laaj na ko daañu ko ko jox parce que loolu mooy yoon kenn du bayo kenn du ñu ne kenn du ñu teg loo xam ne jaaduwul au vingt-et-unième siècle jàpp ni war nañu toog di seetaan loolu donc moo tax mobilisation bi nga xam ne dañ koy woote te ngeen gis ñu ci keroog samedi mobilisation boobu warul dakk on ne doit pas nous amener à l'usure te loolu la bëgg li mu bëgg mooy ñu toqi li mu bëgg mooy ñu bàyyi li ñu bëgg ñu ne ah jaru ko nañ ko bàyyi mu déroulé kenn du ko bàyyi mu déroulé dara gënuñoo yay ci réew mi ëpplewuñu ci réew mi li mu fi am loolu la ñu fi am dañu ko wóolu jox ko pour mu doxal ñun nag gëm nañ ni élection yi dañ ko war a tenir le cinq février moo tax ñun dañuy continuer sunu campagne dañuy continuer sunu campagne puisque amul dara loo xam ni tere nañu ñu continuer sunu campagne leneen li mooy à partir du 2 avril Macky sàll nekkatul sunu président nekkatu ko ñun ñu ko considérer à partir du 2 avril comme le président de la République du Sénégal te bu jotee dinañ leen wax taxawaay bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxaw décret bu ñàkk solo bi nga xam ne signé na ko daañu ko attaqué bu baax a baax a baax a baax a baax ba fu ma foo xam ne jàpp nañ ne fii bu ñu fa demee décret bi nga xam ne amul amul benn njariñ ci waa Sénégal lu dul créer confusion dinañu attaquer décret boobu ba ñu delloowaat ñu rétablir réew mi ci dëgg rétablir réew mi ci dëgg loolu moo jaadu li ci des nag foofu lay terminer mooy appel bi nga xam ne ñu ngi koy lancer la communauté internationale pour li xew Sénégal coup d'état constitutionnel bi fi xew ñoom it ñu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moo war a am may interpeller chancellerie yi fi nekk yépp pour ñu gën a wax ak nit ñi wax mettre la pression sur le président Macky ba li nga xam ne jalgati na ko mu teg ko ci suuf may interpeller la CEDEAO gis nañ seen communiqué bi ñu génnee démb mais nous attendons encore plus de la CEDEAO may interpeller l'Union africaine parce que am na rôle boo xam ne dañ ko ci war a jouer ñu bëgg ñu jouer ko ci may interpeller le système des Nations Unies dañu xaar dañu ba leen bëgg a dégg aussi ci situation bi le secrétaire général des Nations Unies le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies bi nekk fii ci Sénégal parce que Nations Unies dafa nekk di liggéey pour la bonne gouvernance à travers le monde la paix la stabilité et la sécurité du monde te li xew Sénégal wee ëpp jalgati paix ak sécurité ëpp na sax jalgati la charte des Nations Unies donc loolu aussi ñu ci interpellé ñépp ñoo xam ne war nañu am taxawaayu responsabilité boo xam ne daañu ko taxaw donc may wax rek ne Sénégal waa Sénégal mbéjum karam boroom a koy fayul boppam on ne doit pas laisser le président Macky Sall dérouler son agenda prendre le pays en otage nous ne devons pas l'accepter donc nous demandons à ce que tout le monde se mobilise pour qu'on fasse face pour qu'on puisse faire à cette tyrannie de ce gouvernement donc loolu laa bëggoon tàmbali di leen sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullah